kon da ngay defal ko am na yëg kam ko dafa bëgg lu neex bëgg lu Sénégalais yi moom si coobare boobu la ma oowee. mais dama karambaale ko indi musuma kaa defal dara. waaw fekkee karamba maanaam luy woote mu ngi si moom est dem Qatar est que maanaam mënul toog mu toog def lu muy def Sénégal am ndam est ce que dem Qatar. léegi lu gën a dee xamal lu ñu la wax jet privé tey dañu woon du ma fanaan kii tey ba ci Seydina Mouhamed billaahi kam gars yi naan Karamba daa bëgg dem Karamba nii Karamba ku ko neex affaire bi du dem affaire bi yëg la tey bi ñu oowee ne ma jet privé barki Serigne Fallou Mbacke billaahi wallaahi tallaahi ak ministre bi direct jet privé ak ñi nga bëgg a ànd nga dem man leen dew ma. ban ministre la yaa ngi ko ba barke Serigne Fallou Mbacke billaahi wallaahi tallaahi lii ma wax nii sax waruma ko wax mais dama koy yaral pour peuple man kenn duñu ma bëgg Sénégal Karamba buy wax du ak bëgg a dem moo tax muy wax. Karamba buy wax ak yéen moo tax muy wax tey su ma neexoon du ma neex sa xaalis ma laaj ko su ma neexoon jet privé laay dugg guddi guddi Qatar laay fanaan waxoon naa leen ko ci dali waxoon naa la ko fii barke Serigne Fallou Mbacke mais yooyu yëpp jaru ko man sénégalais laa. man la laa ma dara mais yàlla gi nga xamante ni moo ëpp doole si àdduna foo natt dooleem romb na ko billaay wallaay tallaay foo natt doole yàlla suñu borom yàlla dooleem romb na ko Karamba li ñuy doxe nii du man bu leen xool sama bopp bi ma tent bi ni may doxe nii du man yàlla la nit boo ko nangul li ko yàlla may gëmatoo yàlla parce que feebaru hôpital sax bu la dalee nga yaakaar ne laa jàpp si mystique gëmatoo yàlla da ngeen koy nangu